man daal booy yi nekk fii di tàng tàng di rëy làmmiñ di bandi bandilu te duñu bandi duñu dara ay ragal yu bon lañ may wax Bou Siteu déglu naa benn sorte mu naan gis nga booy boobu noonu. waaw ah, wax jooju wax jooju faaw nga leeral wa talaay dalaa koj ma moom loolu la wax. gis nga moom. xolal koju la yow koju la. bu da ma ak yow. non nee na dafa jógee dina wàcc ko la lool kay ñëpp seetaan nañ ko. <laughs> barki te Touba ah. booy bi mu ko waxee xaw na ma jaaxal nee na ma ko maa ngi 37 fu mu jënd galaas. sama sama sama bu ndaw bi ñu ngi nii 37 fu bu ndaw bi gëm ngeen loolu yéen ah. ah man yow laaj waxuma ñi luñ gëmul luñ gëmul Malick Ndiaye koj na la wala koju la. déggoo li ma la wax de. man déggoo li ma. na la wala koju la. Malick tontu. Pikine ginnaaw raay. yi nga wax yëpp dafa gudd. déglu ba ma pare rek damay dama dama lay woon la gën a capable. Pikine Pikine ginnaaw raay caaro yi géejawaay baxdaat band yabu ma xam nga moom du bandi. fan su bandi la. fan mais dama laa limal fii ma dëkk ne la Pikine ginnaaw raay te eh, média laay waxee koy seetaan géejawaay caaro yi déggoo la ma lax band yóbbu ma waxatuma la ak moom mu naan daf maa xoj pour na Serigne Touba dinaa ko képp dinaa ko linjaa ànd ak ay nit ñi caméra ko ma dugal ko sur réseaux sociaux yi xam ne Malick Ndiaye moo linjaa bu Siteu waxal loolu waaj ko waaj moom na waaj loolu Malick Ndiaye làmb ngeen séqoo làmb ji jeexul de jeexul de abi si abi si na abi génnaan na seen suñu dara du jeex déglu ma ma déggoo ma lax de ndax parce que la ma tama ne la jeexul man dafa taxaw ci média yi na Malick Ndiaye dama ko koj diina te ba ma kojee diina bu ma la expliqué fii. damay expliqué ma naka deme demee. damay bëgg léegi expliqué ma waa léegi Malick. Malick Ndiaye léegi expliqué moom gannaaw moom dafa taxaw. Equivox maa ngi nuyu suñ grand Babacar bu baax baax dafa toog Equivox mu ne da laa koj li Ndiaye la. <laughs> bi mu la kojee naka demee. jàmbaar man dama jóge diina jóge kàmb ya di ñëw. comprends point yow ñoom ay tapet lañ kon ñoom ñoo ngi may gis may tërëng. comprends point man ma jóge Kamba yow di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ba si bi. Mhm. comprends point yow si la may koj. moom ak booy bi. moom ak ñaari boo gaaynaam e eh, Malick Ndiaye combat bi du yomb affaire yooyu eh, ma ne ko booy mu ne ma ne ko ginaaru kookali nga ko yow mu ne ma ah ma ne ko soufflé moo fi bàyyi dama naan non man affaire yooyu dugg na jaar na fii yooyu quoi ma ne ko booy mu ma ah ma ko man ma internet damal sa yoon booy jugal sama kanam rek dafay jékki-jékki rek ne ni waay kaay taleen leen caméra yi waay naan cottu nda billaahi wallaahi wata non du ma saaga boo ma ko bolekee. émission sama ñuy def. ma suul sama ne dama ne ko boo si jaaraatee ma ah, ah. boo si jaaraatee ma mbete. barki yénanti yàlla Muhammad bu ma amatee combat yàlla nañ ma dóor ma daanu lépp lu ma amat si làmb yàlla nañ ma daan yàlla bu ma tekki ma ut lu ma ut ci yoonu Serigne Touba yàlla buñ ma ci may yàlla bu ma ci am dërëm lu ma ut ci yoonu Serigne Afia yàlla bu ma ci am dërëm kooku kon kooku man damaa liggéey Serigne Afia kon kooku jarul lu ma may waat waat yi fekkee lu ma wax dama wut nii yàlla naa torox àdduna ak alaaxira nga wàcc ko barki arxu ak poño ko nokkol xoolal na jaan bi ma ñaari seenam dama ko naroon indi Pikine kon koñ bi koñu Afia ragal dëkku fi ragal du fi juddoo ñoo la fi def fi convoi dox wàccu. yaa ngi dégg fu noonu la demee man média lay waxee. comme que moom loolu la wax man dinaa ko linjaa moom moom ci boppam man dinaa ko du ma ko te waxuma dama koy linjaa jël la wala dara de ndax média laay waxee.